xasiidati faaxar xasaayid alkiraam wali taxoodu abadan xayral maraam gannaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa dellu di gën a sant maulana cheikhul xadim radiallahu taala anhu di am mbégte mu mag ci janoo ak yéen Euh, gannaaw ba ñu amee ndigalul euh, Serigne Mouhamadul Mountakha euh, xalif général des Mourides am ndigalul Serigne Abul Baraka xalifa Serigne Fallou Mbacké ak doomam ju baax ji di xalifa Serigne Mouhamadou Moustapha Falilou di sëñ Abdul Qadir Serigne Jili mu sëñ Modou Bousso Dieng ak njaboot gi yëpp mbokk yi teewaay bii nag di teewaay bu am solo boo xam ni mu ngi jëm ci waajal bis bu màgg bu tedd boo xam ni. Eh, diine yi teewoo na ko murid yi teewoo na ko ndax eh, sagub yoon wi la ci jamono ju ne buñ ko tuddee xel yëpp dellu ci eh, joxe addiya ak rafetal waaye xel yëpp dellu ci ak taalibe moo di Serigne Modou Bousso Dieng bisam bi nag xam ngeen ni ñëw na fukki fan ak ñeent lay doon ci muharram njaboot gi nag daa ci am ay taxawaay yu am yu am solo yu mat jëm ci waajal ko ak yaatal ko fas ko yéene ànd ak jullit jullitaal yëpp ndax kat bis la boo xam ni yiw rek la te euh, réew mi fi mu toll nii yitte woo na yiw ak rafetal la moo tax ci noonu rek euh, njaboot gi euh, ba tey gën a laxasaayu ngir euh, euh, barkeelu ca liggéeyam bu tedd boobu lenn ci njabootu kër gi euh, muy kuréelug waa kër sëriñ fallu Mbacké ak kuréelug waa kër Serigne bu sa Dieng mu mel ni tudd nañ ñaari ñaari kër mu mel ni ñaar waaye benn rek la ndax Serigne bu Bousso Dieng mooy Serigne Fallou Mbacké njabootam gi teew nii nag fas ci yéene amal waajtaay wu màgg woowu fan lañ ko jëmee nag ci waajtaay woowu mooy xasida nga xam ni Serigne Touba moo digle woon ñu di ko jàng nangoo ci ay mag yu bare leer ni sëñ bi wax na leen ci làmminam ni de leen jàng sama xasida yi loolu nag kon njaboot gi dégg ko ba tax ñu fas yéene lu ñuy def rek jiital ci xasida yi gannaaw ba ñuy jàngee alquran ba noppi mbokk yi bis bi nii lañ ko fas yéene waajale muy guddi àjjuma incha allah giinu jëm ñu fas ci yéene amal jotaay bu yaatoo yaatu bu ama am solo euh, fas ci yéene dundal waajtaayuk màggaluk euh, sëriñ Modou Bousso Dieng miinoon nañu nag euh, conférence boo xam ni laatu ñuy màggal dañ ko def muy sët waaye lii da cee dolliku ngir ñu xam ni Serigne Modou Bousso Dieng yàlla da ko defal loo xam ni euh, mbirum Serigne Touba la ay tànkam du jëm gannaaw mukk lu dul kanam kanam rek la kon ci noonu rek laay njëkkante ak waxtu wi euh, jox euh, kàddu gi Serigne Baye Galas Mbacke mu Serigne Abdoul Fattah mu Serigne Fallou mu indi ay leeral ci bis boobu naka lañ koy defee ak yéene ji ñu am ba taxawal ko waaye buñ ca jugee incha allahu taala dinañu jox kàddu gi Serigne Jili Mbacke bu Serigne. Euh, euh, Galas Mbacke sëriñ Fallou mu Serigne Modou euh, Bousso buñ ci jógee incha allahu taala ñu taataan kaddu yu mag kàddu yu barkeelu ci Baye Fallou Serigne Modou bu Dieng wala Yaay Fallou Serigne Modou bu Dieng di soxna Awa Gajaga incha allahu taala yaakaar naa foofu lañ koy daanee la mbokk yi kon ñu ànd déglu Serigne Baye Galas Mbacke mu Serigne Abdou Fatah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax te mbégte lool ci yi nga xam ni. daa dañ ko faral di def waaye bii moom da ca raw jotaay yi nag bala ñëw dem fenn dañuy nuyu xalifa général kul murid Cheikh Mamadou Mountakha di leen wax ne lii ñuy wax nag lii ñuy def tamit ci ndigalam lañ koy defee ba ginnaaw bañ ci amee ndigalu Cheikh Abdou mi nga xam ne mooy xalifa bu Cheikh Mamadou Fadal ndigalu Cheikh Abdoul Khadir Jili mi nga xam ne mooy toog jotaayu Cheikh Mamadou Moustapha Fallilu lii ñuy woote nag xam ku nekk xam na ne ku ne ku ne la ku ne la war rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu Cheikh Mamadou Fadal rawatina njabootu Cheikh Amadou Moustapha Falilou ndax ku ne xam ne ne Cheikh Amadou Moustapha Falilou liggéeyal na yoon wépp ku dul julli sax waxuma la ak ab jullit rawatina ñi nga xam ne ñoo njabootu Cheikh Mamadou Fadal ku ne xam na fa mu tegoon Sëriñ Fallu moo tax ñun ñi ñu fas yéene ko delloo njugal delloo njukkal alxamis le 20 septembre incha allahu fii ci Touba Xayra bu 19h jotee incha allahu ñu koy taxawal nag ñu ngi doon kuréelu kuréelu Serigne Serigne Cheikh Mamadou Fadal ak kuréelu Serigne Cheikh Mamadou Moustapha Falilou comme ni ko sëñ bi waxee sànq rek lépp benn la sax waaye da di da di liggéeyal Sëriñ Fallu moom day wane liggéey Sëriñ Fallu bu bu sotti rek ndax bu bu bu mbir demee ba ñaari ñaari ñaari kuréel sosoo ci lépp nekk benn yoon dañ sant dañuy sant Sëriñ Fallu bu baax a baax rek xam naa du ma guddal kàddu gi dama koy yemale foofu rek euh, xam naa mbokk yi ñëw dinañ dinañ matal li manqué woon lépp salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla sunu borom. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñi ngi yeesal sunu jaayante ak Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool ba yàgg ñoo jiite mu yàgg topp ci ginnaawam di àndandoo liggéeyal Serigne Touba comme ni ko Serigne Fallou moom Serigne Abdou Fatah waxee rek bés bi mi ngi noonu bésub guddi àjjuma la goo xam ne kuréelu sëti Serigne Fallou yi ak kuréelu sëti siñ Modou bu Dieng yi ñoo koy taxawal di ko defal Cheikh Mouhamadou Moustapha Fallou Mbacké lépp jëm ci wàccaayu màggalu Serigne Modou gis gi nga xam ne eh, jub si na bis bi nag ñi ñu koy àndal ginnaaw kuréelu ñi nga xam ne ñoo ko organisé kuréelu sëtu suñ Masamba yi dinañ fa jàng kuréelu sëtu suñ Basiru itam danañ fa jàng kuréelu sëtu suñ Masamba euh, sëtu suñ Soñ bu danañ fa jàng kuréelu sëtu suñ Baara moom Cheikh moom moom Cheikh Cheikhul Khadim danañ fa barkeelu ñoom it. programme bi nag nii lay tëddee ginnaaw 19 bu bu jotee incha allah rabi danañ fa jàng alxuraan jàng fa xasida def ko àddee Cheikh Maodo Moussa Falilou ak njabootu Serigne Touba gépp bés bi nag ñi ngi ci woo képp koo xam ne nii rek jullit nga rawatina mbokkum taalibe yi ñi ngi ciy woo waa kër cheikh Mahamadou cheikh cheikhul xadim gépp li ko dalee ci cheikh Mahamadou Moustapha ba ci cheikh Mahamadou Mourtala bàyyiwu ñu cheikh yi bàyyi wuñu mbokki taalibe yi képp kuy daayira koo xam ne nii da ngay yëngu ci wàllum xasida wala sëriñ fàllu ñor la wala lu mantu doon di ngay yëngu ci lu baax ñi ngi lu koy yëgal bàyyi wuñu kenn ñi ngi koy yëgal tamit euh, monsieur le président de la di ko yëgal soxnaam soxna Mariam Faye ak euh, mbooleem gouvernement bi yëpp ñi ngi koy yëgal itam waa opposition bi nga xam ne ñoom tamit ñoo bokk réew ñu ngi leen ko yëgal yëpp di ko yëgal waa Kër Sëriñ Tuubaa yëpp. waaw bis bi nag euh, le 20 septembre lay doon incha allah rabi muy nekk yawmal Ashura di amee ci Touba Xayra ci Kër Sëriñ Modou Moustapha Fallilou gi ginnaaw bu 19 jotee incha allah rabi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala maa ngi wax ci turu yi ci kuréel bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a def. alxamis di guddi àjjuma ñu ko def ci ndigalal sëñ Muntaxa xalif général de Mouride yàlla na fi yàgg te wér di ko def ci ndigalal sëñ Abo Baraka ak ndigalal sëñ Jiili mi nga xam ne mooy kilifa kër gi kull ku sa yaakaar sëñ Moodu wala nga jabootam mooy sa kilifa ñu ngi koy woote ci ndigalam man nag samay wax du ci bari mbégte rek laa am ndax yéen sëti sëñ Fàllu yii sëti sëñ Modou yii ànd gi ngeen ànd am na solo lool yàlla na ci yàlla na ci yàlla laf cat te yàlla bu ci seytaane amu yoon su ngeen àndee te saxal ko te mu continuer te wéy de lu ngeen bëgg dangeen ko man ndax sëñ Fallou def na ko ci yoon wi mi nga xam ne mooy waajuru seen waajur def na ko ci yoon wi kenn ku ne amee ne sëñ Fallou njukkal kon su ngeen àndee lépp lu ngeen bëgg dangeen ko am man nag maay bàyyi Fallou sëriñ Touba boobu sëñ Fallou ak yéen ñii di seeni waajur ñoo ñëpp may seen Baay Fall maa ngi ñaanal ñaanal leen ma wér ak wërsëg wow lépp lu ngeen bëgg rekk ma nekk ca ni ngeen ko bëggee bu yàlla dogalee ngeen di def nii nag ñëpp a ci war a sant ndax xasaayid yi mooy kenul yoon wi xasaayid yi mooy kenul kenul li nga xam ne moo téye yoon wi xasaayid yi mooy saafara si kenn ku ne fa nga nekk boo fa ne boo defee xasaayit lépp luy sa itte yàlla dana ko saafara kon ndokk ba leen yàlla xiree ci ngeen jiitu ko di ko def ba noppi te bokkul ak nag conférence bi nga xam ne ngeen ko daan def fangu ci dara kon nag ñu ngi woo taalibe yi Serigne Touba yi di woo sama mbokki taalibe yi di woo samay bokk di woo samay xarit di ko yëgal parisident de la république di ko yëgal Marème fay sàll soxnaam te di ko xamal ne ko nag waa kuréel bi moom woo nañ la ci màggal gi na nga ñëw ci màggal gi teew si di ko yëgal Macky sàll di ko yëgal waa opposition bi yëpp ndax sëñ moodu ñëpp la seqaloon commence di président de la ak ñeneen ñi ca des ak ñëpp kenn ku ci nekk am na lu mu seq ak yow dafa yaataloon kon nag yaatal boobu njaboot gi fi nekkit moom la ñu def ba tey rek ñi ngi woon ñëpp daal yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin man nag muy guddi muy suba muy ngoon muy bëccëg lépp lu ngeen itte rek na ngeen ma ko wax danaa ca def ba def ci loo xam ne sax du ngeen ko foog yàlla nañ fi yàlla bàyyi nun ñëpp maa ngi leen ñaanal fan wu gudd yàlla musal leen ci am ndok akum ndab musal leen ci saytaane ba fa ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa sama xol sedd na bu baax a baax ci ànd gi ngeen ànd neex na ma lool jërë ngeen jëf nañ ko bàyyi xel te xam ne bis bi incha allahu taala guddi ajuma jiinu jëm la eh, ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu ñenn waaye bàyyiwuñu fenn waaye bàyyiwuñu kenn eh, kon mbokk yi eh, incha allah buñ ca àggeeg jàmm ñuy fàttali rek ni kuréel yi nga xam ni woo nañu leen ci mooy kuréel yi ñu bokkal Serigne Touba nga xam ni bokk na ci kuréelu waa kër sëriñ ma Samba Mbacke dañ fi jàng incha allah waa kër Serigne euh, euh, basiiru Mbacke incha allah ñoom tam dinañ fi jàng waaye waa kër Serigne Souhaïbou Mbacke incha allah ñoom tam dañ fiy jàng waaye waa kër Serigne euh, Baara Mbacke borom kàddu gi mu Serigne Touba incha allah ñoo ngi leen di xaar ci bis bi bu ñu ñëwee incha allah kenn ku ci ne boo barkeelu ba noppi da ngay toog néggandiku ba kuréel yëpp jàng ñu àndandoo ko benn kuréel yëkkati fi benn xasaayit tëje ko ñaan ànd bokk fekke magal geeg jàmm. قصيدتي فأخر قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام